amna ñaan yu ilimaan yi di faral di ñaan mana bu ñuy commencé seen khutba juma di wax na na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina lolu lan la shururul anfus lan la bari na ko xam ni boo ko ko firiloo woon rek mu daanu ndax sururul anfus mooy dangar dangar dangaru bakkan bu màttee jikko rek mu jur sayyiatul amal ni ngay ragale jànn ndax dangar ji ba bu la màttee ñu wut kuy lugg yow itam sa bakkan ak dangaram bu màttee sa jikko fokk ñu wut ku la lugg moo tax mag ñi di bëgg sax bala laa màtt ñu jàngal la lugu bi ba noppi mooy waral ñu tegal la àlluwa ni la baa siin mi mara waaye baa siin bu xale bi bokkul ak baa siin bu mag bi ku ci nekk ak sa baa xale bi xarab lañu bëgg moo xam ko motax ñu ni ko baa siin mi mara waaye bi bi dem ba tollu ci nek borom keur ñepp yaakar ko malaka fekk ko fa niko ba mu ni jangon na ko de ñu ni bu jëkk ba bobu ba nekkul ci xutba yi mu ni waaw kon mooy lan ñu ni ko baa bi baa bi mooy bukkaa ut tawaabiin mu ne ak lan ñu ni ko siin bi mooy sahwul xaafiliin ñu ni ko ak ban mu ni ko miin bi mooy maxfiratul mudnibiin nga bëggu basin simpleul bukaau tawaabiin baa bi baa bi lu muy wut si mooy jooy yi kiy rëccu di jooy baa bi fexe ba feral sa rangoñ ndax dootoo def looy rëccu لو سين بي سهو الغافلين ني ساغن باتاخ نو ووتي سين ليبي بروم سين بي نيو فخه با دوخ سا ديغنتك جاغنتك غوغو ba dara dootul dox sa digganteeg jox sa borom li mu moom ci yow miim bi dem ci magfiratul mudnibin te mooy agenda bi yàlla yor te kum dul téyel bàkkaar mu bind ci sa tur miim bi fexe ba sa tur dugg ca ndax am nga jom gu day ni dootoo bàkkaar donc boobu mooy basin bi mën bu mag ñi boo ca jógee nag ñu soog laa dugal ci auto école bi te auto école bi mooy basmala bi cettt auto école يا خمنا من برمينغ يوت مديكي أهل الصفا غبغ بوك الله موي نك سان سولتير بو فكي أهل الوفا غبغ بوك الرحمن مولاي جانغال بو فكي أهل الجفا nga bëgg a bokk rahim moo lay jàngal waaw ahlu safa ñooy pilote pilote de ligne yi ah, ok am seen passeport am seen billet am seen lépp te ni ci yàlla la jëm

Nous it dafay licence licence la ñuy am mais permis parce que permis est tout. ci ñoom ahlul wafa engagé pour que vous puissiez faire yéene jullit yi rek ñu ko chargé. mu dem ba yegg ci ñoña ar-rahman mo len di entraîner ba motax sax xamoo loolu tax Iblis am chance ci rek yem ci carton rouge na bu commission bi dajé mën am peut-être peut-être parce que bi muy bi muy sàggan bay perdre ñukoy jox carton rouge fekk na bobu nekkul ci cadre Allah. تكادر الرحمن لفك يلا إن الشيطان كان للرحمن عصيا لولو ما يشانس بي أهل الجفانة أوكي ما داري أوكي

moy jël sen formation malaka yi len wër di len defal entraînement naan fadribu fawqa al anaaq wadribu minhum kulla bu boo gisee itam sunu borom sonn ci boobu sonn asmaam yépp mu mobiliser leen pour que ñu dimbale nit da fay xaw firi li wolof di wax ni kuy dundu du xéñ kuy dundu di xéñ bo dé du ma ta wax kuy dundu di xéñ bo dé du ma ta wax te yàlla bu sañon jullit du ñëw aljanna di xéñ بس كروح وريحان لك فاهم موي تخناك ني دون يوننتي سين رول دفا ديلو شي لولو لاكو لاكو بامبارا دي وخني néew bu nëbboo ko koy sang bu wattuwul tilim la yóbbaale àllaaxira tax yàlla sonn ci wàllu nafs ndax nafs dangaram dafa ëpp waaw moo tax mu bëgg ñu di ko dressé ndax buñ ko bàyyee ci nature profonde am moom itam mu tukkalaatu la moo tax yàlla bëgg ñu di ko dressé pour mu am une seconde nature moo tax qad aflaha man zakka waqad xaaba man dessaaha bàyyi ko noonu rekk ak dangaram wóorul waaw bu ko defee kon nag dangar bi bu la xasee ba gañe dafay bari yu la yomb dangay defe ni àdduna lépp xëccoo la di nga xëccoo kër di nga xëccoo alal dinga xëccoo jeeg bu rafet dinga xëccoo ay doom dinga nga xëccoo wurus ak luy xeetu takkaay di nga xëccoo mala fas yeeg xar yeeg bëy yi nga di ko xëccoo mel ni du nekkatu nit waaw xëccoo tool ay tool waaw fu ne ñu dégg la fa ci tirbino yi ndax xëccoo waaye yooyu yëpp mën na simple bi garaaw mooy xëccoo bàmmeel ak jàkk xëccoo bàmmeel ak jàkk yàlla defu na ni nit dina ko ëpp surtout jullit wa man adlamu nag mimman mana masajid allah an yudkara fiha ismuhu almanaa almanaa dafa am ñetti firi foo xam ni siis lay firi siis ak foo xam ni xañ lay firi ak foo xam ne tere lay firi foog nga xam ko waaw wa mam wa man adlam yàlla waxinam kenn xamul lan la waaw ana ku gën a neex a jippi waaw ana ku gën a neex a jippi

parce que six toujours ci loo bokk ak ñeneen lay doon waaye bu delloo moom yow rekk ñaara fi ne benn nga xañe baa nga tere waaw xañe bi walla tere bi mooy ñi nga xam ne yamna'una al ndën sax ndën sax doo yéene bokk koog ñi ci def bu baaxul dama daan dal ca daara ja comme ñun ay ndongay daara lañu woon sunu ñi ñu am dañ ñu daan yërëm di ñu sarax añ bu ñu saraxee añ bu nuggee duggee ci néeg bi ba noppi war a génn dem ci ñi ci des ñu daan am benn mbokk daara ba xam ni jikkoom dafa xaw xat bu waree génne ndab yi pour nit ñi jariñoo ko day xool ndab bi mu jàpp ni moo ci gën a neex mu dugal ko ci gannaaw lal bi muur ko foofa xam naa boo demee ndaw kunda lay doon nama <laughs> ndaw kunda yi baal bokk wala mu nekk bokk genre waaw càlleen bokk bu ko defee Issa Sall baal ma tuuti waaw <laughs> ko defee bu ko dencee ci gannaaw lal bi dem jël beneen ndab bi génne comme xam naa jikkoom buy génn rek ma daal di dem ci gannaaw lal bi bu ko defee fekk mu muur fa beneen ndab ba rek mooy daal di jël ndab nee diw mu naa mën ko kay jël bu ko defee bu gisee ndab bi di ko romb rek boo xoolee kanam gi tabarkal la waaw <laughs>

ليينجل يفي الهلا من الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان شهد إنك سنبرون وحنم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان يلا ارتست دقنا حبب إليكم الإيمان yàlla nee na maa jël iman def ko aquarium aquarium la iman aquarium la yàlla nee na maa ko décoré te maa ko alimenté mu am lumière ya mu am moom iman pour lan seen roox di man di nager ci biir comme ni ngay gisee aquarium yi jën yi benn tolloowul ak morom bi benn bokkul ak morom bi couleur ñuy duggante di def nii yàlla neen bu ngeen seetloo rek yëg ni iman moom it aquarium la boo xam ne maa ko décoré ah yaakaar naa Babacar Thiaw am na ci leçon waaw <laughs> maa ko décoré ma ca def lumière ya ma ca def waaw bu ko defee arwaax yi nekk ci biir aquarium boobu nag waaw waaye am na ñu nga xam ni yéenewuñ ñu jën yi ñu dund moo tax léeg-léeg yore benn produit bu tudd al kufr wala produit bu tudd al fusuq wala produit bu tudd al isyan buy dugg ci aquarium bi rek jën yi di faatu moo tax foog ñu surveiller leen al kufr muy lépp luy tax xol di gàntu xol di gàntu lu jóge ci yàlla mooy al alfusuuq moy luy lépp luy tax teraanga du yegg ca ñako yeyo al isyaan Moy ñi wuute yiw ci yoon bu daganul looluy tax sunu borom surtout ci waxinu góor gu tedd gi Seyid Cheikh Ahmed Tijani mu ni ku bon ku bon wala mu ni say-say mooy yàq gor waaye ku añaan mooy yàqal gor waaw ku saay-saay mooy yàq gor ku añaan mooy yàqal gor moo tax ñaar ñii Sëriñ Cheikh wax ni wattu leen ci ñett wattu leen bu ñu nekkee waxteef wattu leen bu ñu nekkee yëgteef wattu bu ñu nekkee njëgteef ñu bari fàtte woon nañu waxtaanam boobu waxteef yëgteef ak njëgteef xam naa buñ nee njëgteef nag ñun niñ ko xamee ci wolof du boobu nee na wax moy ko xamni kiko déranger bu ko déranger bu ko dérangé làmmiñam dootul selaw bés bu ne mu ngay wax lu ko meuna yakal ci nit ñi ñu ni ko ak ban mu ni yëg te mooy bu waxee ba sonn te wax bi jariñul yëg-yëgu songu songu ko dugg ci moom mooy yëgteef bi ne ne bu ko songeet ba noppi te fekk ne song bi jariñul dara nag mu mujj ci njëgteef njëgteef mooy njëg mu fekk ku mën a rey nit wala mu mën a làggal nit wala mu mën a dofloo nit mu jox ko njëg ni ko reyal ma diw walla làggalal ma diw wala lool ma diw ne koo koy njëgteef waaw ñetti plan la nag plan A plan B <laughs> ak plan C soxna Kiné nee na soxna Kiné nee plan A bi la nee plan B bi double zéro la nee na plan C bi nag triple zéro la